ليما بزرف هم زياتي كيما تقول زمامي بغزياتي محمد سليمان بسرب هم زياتي كيما تقول زمامي بغزياتي عبدا إذا استال قلبي حسن بهجتها وواجه للعدايا بالمبرات عمسا تجيب نفسي كي أميل لها وحاولت ميل قلبي للعديات وقد مني بما يكون لخدمتها وسرت صدقا بالرقيبات دورا تديني وتولني جوارزها وتارة ليدني بالبشارات لكن

ndeysaan Mbàkke Aram nee na tudd kon tuddee na ko Mbàkke Aram turu ñaari maam yi waaye nee na mën nañ koo woowee aram بما لها من قيام واستجلنا kii du bàjjenu xale bi abi bàjjenu xale bi jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Borom Touba. jërëjëfe Borom Touba. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. jërëjëfe Teeti. jërëjëfe Teeti. Cheikh Ahmadou Kra Mbacké Noreyni. Cheikh

waaw na ñëw ko ci raay par kii léegi nag fukki leeree yàlla ak ñaar yoo xam ne musu koo utiliser mu ñage ko leeru yonent bi benn ñaar ñett ñeent ba muy fukk ak ñaar man maa waxoon en quatre-vingt-dix-neuf ca stade Demba Diop man naa waxoon ni leer ga sosoon ci moom rëkk rëkk rëkk mm-hmm. suñu borom nammee sowe julli bi mm-hmm. naree sowe ñu nara sowe mm-hmm. booba leer googu jël mu war a ñëw fii war fee indi jëmmi doomu aadama war fee jëm indi jëmmi nit léegi kon fan la war a jaare kon mënta jaar fenn fu dul mënut a jaar ci kenn ci benn jigéen bu la meilleure des pour tous les temps hmm. Hmm. meilleure des femmes pour tous les temps hmm. mooy kañuy wax Marie yaay Iisaa ibnu Maryam ñu delloosi ko mu ñëw fii tudd Mariama ci jullit yi Marie la tudd lañ ko daan woy fële ci chrétien mais fii Mariama Mariama la tudd Mariama moomu ci nekkoon pratiquante boo xam ne ba ñu koy wooyee la voisine de Dieu bu mm-hmm. dund fi fanweeri at ak ñett ya doom jël dundoon na Insa bnu Mariam ca démb man mm-hmm. maa ngeen ku ko waxaat kon ngeen mën maa comprendre waaw <laughs> kon ci tax ma comprendre moom la soog pour ma comprendre mm-hmm. waaw bu ko defoon keneen comprendre <coughs> loolu moo tax ma wax leen ni leen laana liyal quluubu wal abdaanu leen xaradatil biidaanu wa suudaanu ñu weex ñi dafa ñoo bokk sama mission sur le plan culturel ma leen di jaar par la mélodie laa leen di jaar et chanson tubaab <laughs> ndaxte biidaan jooju sax joxuma ko tubaab yi ndax albidaanu firiwul tubaab firiwul nasaraan albidaanu mooy ñu weex ñu ñooy jàpp naa ni bu nee ñu weex ñi naar yi dafa ndax foofu laa gis ab journaliste di ma tàccu te mosuma gis journaliste moom li ma xam ci journaliste journaliste ñaari day góoxi lekk mbaa muy contesté mbaa muy kii mbaa mu lay fexe juum loolu laa xamal journaliste waaye journaliste buy tàccu ak leader ci naar laa ko te benn waxi ku tedd ki benn vers bu mu wax képp moo leen tàcc ko. xam loolu leer na nañ. loolu kon am na lu ma ku tedd ki bëgg woon ci naar yi. moo tax ma wax suñu Maodo mu ne ko faaw ma am base foofu ci golf bi. boo xam ne pour naar yi la. ma ko su ma fa amee base sept mois. nga gis naar bu ma jox avion. juróom-ñaari weer. dëgg gis naa parce du. du caa génn moom a koy jox naar ba waaye ku tedd kee ma koy jox moo koy sant naar ba du ko sañ bay mi ngi ni yow mii rek sa oto bi maanaam bu may jox ko na ci yow ngay sama turandoo leneen loo ma joxe bu yow yaa ma jox bu tedd a bay mhm. mhm. ak benn ndékki mhm. du moom ku tedd kee ku ko sant at bu ma ñëwee mu taxawal ma ñu indi beneen tapi lal Serigne Saliou du ma ñëw mukk mu bàyyoo ma toog te laaj loolu beneen tapi yooyu yëpp ay signe la yoo xamante bi ay signe la yoo xamante ne bi yu doy waar su ngeen déggee may wax euh, ni Serigne Touba réew mi maa ko jógee Sénégal su ngeen déggee may wax loolu waxin la du ko man ma dem doon président de la république du Sénégal déedéet du loolu waxee ma foofu réew mi maa ko ci lay mooy dafa am projet de société boo xam ne moom mën a développer réew ma te man la désigner waaw pour ma leen di reeteet waaw système ma leen di reeteet xam nga reeteet moom boo ko déggee reeteet maanaam day nekk ci kaw garab naan jaan jaan ne serpent serpent waaw ba ñëw rey serpent <laughs> ay retraite waaw donc su may wax ni réew mi maa ko ci doy wax ni yëppay xew nañ fexe ba mu yem ci Macky nañ te euh, wax ni nañ fexe ba mu yem ci Macky ñu toll Macky laa xamul nu ma koy def rek mais sama révolution dafa jot waaw sama révolution dafa jot waaye jërëjëf Serigne Touba jëm ma téye woon mm-hmm. dafay nekk ba tey mm-hmm. mu am benn connexion bu ndox sama diggante moom ak benn liaison boo xamante ne bii bu dox sama diggante moom ci cofeel boo xamante ne bi fi ñu nii moo tax mu mel ni sama révolution dafay dafay dama koy tardé léeg-léeg tardéwul dama koy façonné ndax li kulli shay'in ajal chaque chose en son temps te fi dama toll ci di settantal ci di settantal dégg ngeen yee passé ma wax ne su ma pouvoir ñoroon Sénégal su ma pouvoir bi ñoroon su ma ñoroon <laughs> pour pouvoir bi ñëw ci le mouridisme turum tàcc lay doon taxat du dam ndax mhm. maa nga fépp maa nga ci gendarmerie maa nga ci policier maa nga ci pompier maa nga fépp ñu ci seen dirigeant yi ki ci gën a ñàng karaa lu tudde boppam maa ngi fépp des yóm waaye nag ku tedd ki préparé ma boppam dafa fiir ci man xajalul kenn ci man waajalal ma boppam di ma xamal li may xamal di ma protéger nu nekk nag waaw ak di ma sagalee nu ne ba tax na nag waaye fii mu toll nii li ma leen wax fii nii ci Bruxelles bii nga xam ni mbokku taalibe bi sax nee na ma naa leen ñamal ci fukki tur yeeg ñaar tuuti waaye bi ma leen ci tàmbali loon rek muy bàmba ji. Mhm. ba mim ba muy bàmba ji wax naa li muy wax mooy juróom-ñetti malaayka yi te aras yoo xam ne ñi nga xamante ne bii ku tedd ki ne ku xam seeni tur doo dee te wanuñu la sa kër ca àjjana xaafisuha laysa yamutu abada xataa yara wastal jinaani maqada waxi ku tedd ki la waaye ku tedd ki bu la waxee loolu ba noppi man damay ñëw wax la ni la fekkenteen jërëjëfe Sëriñ Tuubaa sax na ci sa xol doo dee te wanuñu la sa kër ca àjjana xamal ne yaa wax yi ko tedd gi la lii samay wax waaw